rek la nga xamante ne mu nga amoon ni ki tey ca Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose muy rek euh, cérémonie euh, concours général ba nga xamante ne ak ko présidé di président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye li ni mel nag ñu daal di rek récompensé ñenn ca ñi nga xamante ne rek jàpp nañ ne ñoom ñoo rek dàq jàng fii ci Sénégal bokk na rek ci téeméer ci ay ndongo yoo xamante ne rek daanaka ba ñu ko répartir rek bokk na ca juróom fukk ak ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xamante ne rek ay góor lañ mu daal di nekk yamook classe première ak terminale mu mel ni nag ni ki tey daal nañ leen rek honoré ca concours général ba nga xamante ne ñu nga ko daal di am rek évaluer compétence yi nga xamante ne yi leen ndongo daal nañ koy am rek bokk na ci fanweer ak ñaar ci ay discipline mu mel ni nag ka nga xamante ni sax daanaka dugg na ci histoire bu Sénégal di rek ndongo la nga xamante ne mu ngay wuyoo ci Zeynab Diène Samb moom nag mu sax doon Miss Math ba noppi doon Miss a mu daal di doon rek loo xamante ni sax daanaka dugg na rek ci soirée Sénégal gannaaw diir bu yàgg rek gisuñu loolu mu doon rek ay ndongo yoo xamante ne ni ki tey ci teewaayu njiitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ka nga xamante ne moom moo di premier ministre am ñu daal rek présider bi les cérémonie rek nga xamante a ñu nga doon amal lii di concours général daal di honoré rek ña nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom ñooy meilleurs élèves fii ci Sénégal ñu daal di wax ca Ahmed Suzanne Camara mu mel ni dina rek passé guddeem gu njëkk ca prison ba lool nag gannaaw juge d'instruction troisième cabinet di Augustin Faye daal rek topp la nga xamante ne rek moom moo di réquisitoire introductif ba nga xamante ne procureur de la République daal dina ko cay rek jël mu mel ni nag moom Ahmed Suzanne Camara daal nay rek fanaan na ni ki tey guddeem gu njëkk ca prison ba ci fàttali nag moom bokk na ca kàddu ya nga xamante ne rek a rek tegginewul dara ah, mu jàll ko rek njiitu réew mi waral sax ba moom ah, ñu daal di koy rek tegoon na loxo waaye nag ni ki tey ah, gannaaw atte ba nga xamante ne amal nañ ko ca rek daal nañ koy yóbbu ca prison ba mu dal di doon a mbir mu doy a ni ki tey ca diwaanu Tiwaawan moom Amadou Ba demoon na rek seeti xalif ba di Serigne Babacar Sy Mansour gannaaw nag visite ba nga xamante ne def na ko foofa ca diwaanu Touba ca rek Serigne Mountakha di xalif général des mu ca jógee nag mu nga daal di rek teeri ji foofa ca Tiwaawan moom Amadou Ba nag soxteem yu njëkk gannaaw élection présidentielle daal di jàll rek dem na ni ki samedi foofa ca diwaanu Touba ni ki tey nag mu daal di jàll rek foofa ca diwaanu Tiwaawan député bi di Guy Marius Sagna daal di nay rek interpellé ambassade bu France loolu a bokk na ca poste ba nga xamante ne def na ko ca page Facebook am rek muy sàkku sax ñu rek jox passeport ñoom ñoo a ah, doom ci ah, feu Didier Badji ma nga xamante ne rek ah, daanaka dafa réer ba néegani si kenn gisu ko mu daal di doon loo xamante ne rek daanaka dañoo rek te passeport ay doomam rek waral ba moom muy sàkku rek ca ambassade ba ñu daal leen koy rek jébbal naka noonu nag mu mel ni xale sax ñaanoon nañu visa rek jamono ja nga xamante ne seen wayjur bu jigéen mu ngay dund rek ngir dem ca diwaanu France fekki ko fa waaye nag ñoom ambassade ba a dañ leen lankaloon rek li ni mel waral nag ba moom Guy Marius def poste rek ah, di sàkku ca ambassade ba rek ñu daal di jox passeport ñi nga xamante ne ah, ñoom ñoo di doom ci Didier Badji ah, ñu daal di génn ca loolu wax ca leneen gannaaw mariage am ñu gajoon koo gis loolu mu mel ni moom jaara bu seen petit gàllé daal nay rek réapparaître bi yoon nag mu nga daal di rek dévoiler teaser clip ba nga xamante ne ñu nga koy xaar rek amu fas yéene génn sax moom jaara nekkoon ca seen petit doon tamit jeune artiste euh, bu ñu xàññee bu baax a baax mu mel ni nag gannaaw si mariage am nag sorteem bu njëkk bokk na rek ci fësal teaser clip ba nga xamante ne rek mu nga koy xaar ñu daal di wax ci Guigui mu mel ni nag daal dinay réapparaître rek gannaaw ab a ñu gëjoon koo gis rek daal di partager de très belles moom la ñu gis noonu rek ak belle image nga xamante ne moom Guigui daal na koy partager rek ci ay comptam kii di Modou Lo le roi des arènes daal nañ koy rek accueillir chaleureusement foofa rek ca diwaanu Tivaouane loolu nag bokk na ca baptême bu Serigne Moustapha a doon doom rek ci kii di Ndiol Fouta a ki baptême boobu nag waral ba moom Modou a daal di déplacé wu rek teew ci li a mel ñu ngay gis rek full image ba nga xamante ne rek daal nañ koy topp moom le roi des a ku ca jamono ji kenn mënu ko jot mu mel ni soxnaam tamit ñu ngay wax sax naan a benn appel loolu nag ak ko wax collaborateur am rek mu daal di sax def yi les révélation moom Kouthia nag gannaaw mu dal di tëdd ab diir daal di rek feebar ñu doon wax sax naan jamono ji ki nga xamante ne moom moo di Youssou Ndour ak gouvernement ba sax daanaka dugal nañ seen loxo ci feebar ba rek ba daal di koy rek yobbu ci benn a fii ci Sénégal mu mel ni nag moom Kouthia ñu nga koy rek traité ca feebar ba nga xamante ne moom moo ko daal di dal waaye nag la ca jaaxal ñëpp te sax mu doon ay révélation yoo xamante ne ñenn ci ay collaborateur am daal nañ koy def rek moom Kouthia il est injoignable jamono ji soxnaam sax daanaka ñu ngay wax rek boo ko woowee doo ko mën a jot téléphone ñu daal di jàll ba diwaanu Daara Jolof mu mel ni nag ab xale boo xamante ni sax daanaka mu nga am lu toll ci ñetti at moom lañ daal di fekk ci benn woto mu ñàkk bakkanam li ni mel nag moom xale ba gannaaw nag mu génnoon di fooy rek gis ab woto bu daal di gaare sax ca la daal di dugg naka noonu nag la porte ba daal di fermé wu rek amatul air boo xamante ni rek daanaka moom mën na koo nooy mu mel ni dafa daal di fat rek ca biir oto ba ñu daal di ko fay fekk sax mu ñàkk bakkanam mu daal di doon mbir mu doy waar rek daal di xew foofa ca Daara Jolof ay yeneen ñett ci ay xale ca diwaanu Kédougou ñoom la ab camion daal di saaraan daal seen kaw ñu ñàkk seen bakkan ci saa si li ni mel nag mu daal di doon ap tiis foofa ca Saraya ca diwaanu Kédougou mu mel nag camion ba nga xamante ni sax daanaka moom moo rek ca ca a Mali daal di rek perdre contrôle saaraan rek dal ca ñett ci a xale rek ñu ñàkk seen bakkan ci saa si ñu daal di jeexalee wàllub tàggat yaram daal di rek addu ca coow la nga xamante ne am na ca Amara Diouf ak ñii di génération foot ba ko daal di formé rek mu mel ni moom Amara Diouf nag jamono ji sax mu nga woon rek foofa ca diwaanu Espagne ca Barcelone di rek fàcc genome ba nga xamante ne rek a daf ca daal di gaañu loolu nag ba moom dina rek toll ci ñett ba juróom-ñeent ci ay weer ah, mu mel ni nag gannaaw ba nga xamante ne am na ab agence boo xamante ne moo ngi tudd Dodici sport management daal di rek doon agence boo xamante ne rek mu nga nekk ca diwaanu Uruguay ñoom nag daal di rek signé contrat ak ka nga xamante ne moom moo di Amara Diouf ci rek daal di koy sax jël en charge li ni mel nag mu mel ni ab coow rek la daal di andi waral ba ka nga xamante ne moom mooy borom génération foot di Madi Touré daal di rek génn wane ñu gu ñu xoolam rek. nag ci li a mel ak contrat daanaka moom jour ba daal koy am ak bile li ni nag muy fësal sax ne kii di Amara Diouf mu ngi rek nekk sous contrat ak Génération Foot waral nag coowal justice sax daal di cay rek juddu moom Mady Touré nag pare rek ngir daal di sax poursuivre agent boobu nga xamante ne rek daanaka daal nay xaatim këyit rek ak nga xamante ne moom moo di Amara Diouf mu daal di doon mbir moo xamante ne rek daanaka boo moyul rek yoon dina ca am liggéey la kii di Balla Gaye 2 daal di def gis nañ nag empereur baak euh, la nga xamante ne bokk na ca salaire bañ ko daal di doggal rek euh, ci diirub juróom-benn weer mu tol rek ci un million cinq cent waaye nag euh, moom Balla Gaye 2 salaire am bu njëkk rek daf ca daal di sax dolli cinq cent mille mu daal di mat ñaari million ci sunu koppar mu jébbal ko rek écurie ba nga xamante ne fa la daal di nekk muy école de lutte Balla Gaye li ni mel nag yamu ca mu daal di sax daggal billet umra ka nga xamante ne moom moo di préparateur mystique am di Thierno Gueye waaye tamit soxna Madi Buri Bathily tamit mu jox ko billet umra naka noonu mu daal di defub teraanga rek jëmal ko ca soxna sa tafatina mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ leen andiloon loon acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf